maa ngi interpeller di alerter ñi nga xamante ni mooy suñu mbokk politiciens yi nañu bàyyi xale yi nga xam ni ñoom la ñuy si kaw ay leader politique ay ay kilifa diine ñuy saaga askan bi loolu nag ki ma siy njëkk a alerter mooy Ousmane Sonko sama xarit la waaye na bàyyi ñi nga xam ni ñooy ànd ak moom di saaga nit ñi loolu jaaruwul nit boo ànd moom danga koy jox cër ndaw man ku ne xam na ne ba nga xamante ni mooy am na ay jafe-jafe maay ki njëkk jug ànd ak moom dagg sama voyage jóge Istanbul wàcc aéroport dem këram combat bi déclassé ñu nangu samay kër tëj sama entreprise ngir moom ma muñ ko ngir xeex démocratie ak li nga xamal na ko doon def kon tey bu ma demee ba nga xamante nii situation bi ñëw na kenn ku nekk am sa liberté na nga egg sa liberté waaye nañu bàyyi saaga yi ak wax yu ñaaw man saxaar laa maa ngi ci kaw raay bi Serigne Touba mooy sama kaar ku faj jaar ci kaw raay bi naa la kër jàll. li nga di dégg nga euh, waa Yewwi Askan Wi wax ko ñun loolu concerné wu ma concerné wàllu ndax ñun duñu ay xale bay tëgg ay bool ñu lu ñu ñor mooy ni ñu fexe ba jël fi Macky Sall te dafa am lu ñu digoon Sénégalais yi dama bëgg ngeen xam ku baax li ñu digoon Sénégalais yi mooy bu ñu demee assemblée ñun wàllu ko Yewwi ñu fexe ba dund gi wàññi ñu duggal loi de finance bi loi bo xamne da fay xex nguur jigen lolou ba tey dugalagun ko assemblée lan lañuy xaar dañu waxon dañu modifier code électoral bi pour Khalifa Sall akari wat nek kanda lolou loolu ba tey ko lan la xaar dañu waxoon nii dañu fexé ba nga xamanteni da na dindi loku dotation yi ci ci prison yi lolou man mi di wax ak yow def na ci proposition loi ministre bi nee moom def na si benn nga xam longue dotation yi daan ko jëlee maanaam limitation yi indi ko 300 loolu tamit liggéey na ko ci assemblée nationale loolu mooy li fi jot def ñun bokkuñ si fi yooyu noonu bokkuñ si ay casserole yu ñu tëgg décembre kon maa ngi laa si appel ñun daal tracé bi ñu am mooy Macky Sall jóge ci réew mi nu mu gën a gaaw